na santaat yàlla rek xam nga julli si yonent bi xam nga ñaari waajur bu baax a baax a baax di sant suma yaay bu baax di ko ñaanal xam fan wu gudd ak wërgu yaram di sant sum famille yëpp bàyyiwuma kenn suma mag juma xam nga Cheikh xam nga bàyyiwuma kenn daal famille Ndioufène yëpp maa leen di bëggee di leen siyaar xam di bëggee ñaari tëli bi nga xamante ne fi laa yeewoo saa ne du ma taay di ko wax rawatina sama koñ koñu saf-saf bii xeebu ma leen benn yoon barke alxuraan xale mag ndaw xam nga boo xoolee xale yu ndaw ndaw yi sax laa gën a gën a duglanteel parce que man ak ñoom la. bilaahi bàyyiwuma kenn ma fi yaabu bàyyi faale yëpp maa ngi di bëggee ñoom ñëpp di leen siyaar yee. waaw ñu ngi waajaat ndax daanaka nekk lu bees si ñun ko bëri nañu bëree di xam nga doonul lu nga xamante ne dañuy toog tamit muy toog suñu mayeen Papa Siteu comme adversaire yi passé la wala adversaire yi passé sax ñoo gën a tàng ay xeebu ma ko benn yoon tamit làmb la mais gëm-gëm bi ma mooy que ni baa du soufflé dama koy daan te ci kàttanu yàlla dama koy daan yee maa ngi koy waaje nu ne waaw man dama bëgg làmb Omar Saliou man dama bëgg làmb dama yàgg a fooye làmb nekk ci milieu làmb xam nga làmb moo xaw a doy waar rek mais du yoon may bëree ak ay Papa Siteu yii nii yee mais sant yàlla quoi yàlla lu mu def moo gën lu mu deful. waa xam nga rek comme li ma wax sànq làmb moo waxul dëgg xam nga te moom toll na fa xamante ne nii am na coow ci làmb mais bés bu at bi soufflé bañ laalee dinañ xam ne liilu du làmb yàlla ma tiim xam na wo non bëre yi bokkul bëre yi bokkul du maa moom maa daa ko bëre fuuf non maa daax a bëre yàlla xam na ko bëre sama yëf la non non bëre sama yëf la bëre maay borom non loolu daanul Pape Diakha Pape Diakha bu toog ci tànkam bëre normal caaxaan daanu ko non non waaw moment bi maa ngi ci wit combats waaw am cinq victoire trois défaites yee di ko sante yàlla bu baax daal waaw ñu ma ci daan bëri na Garga Lac de Guiers Junior Boy Sarr xam nga ay nu mu tuddati kii parcelle golf ak saa tënk ak Lac de Guiers xam nga des na Garga 2 Garga 2 garga 2 bu Badajon des na de waaw ñooñ laa daan sa kii moo ma daan caatu xaar yàlla moo ma daan ak farbu jar ak baaba jaxal yee ñooñ ñoo ma daan ci yee yee non waaw waaw noonu la demee eh, yàlla na ko ñibbee moom ci jëm booba moom Papa Siteu ah. waaw yàlla na ñibbee waat defet bi yee ñun foofu man maa diriger Omar Saliou man fii laa la ko waxee lambu jooju man maa diriger barke yonent bi maay diriger waat yombu ma ci lamb mais lamb ji man maa diriger parce que bor la xam nga sama sortie bi passé gars yi dañ ma joxloo adversaire bi cër ba mu dem ba ci biir ñeme ma ki gis na combat bi ni mu demee xam nga ma ci sant yàlla bu baax te xam ne loolu moo gën mais lamb ji man maa diriger bor la te dama koy fay ci nii wala ci naa loolu far force la lu fay am maa koy def maay fecc maay bëre maay xeex te maay daan ah. incha allahu rabi bu neexee yàlla loolu lépp maa koy def waaw day mobiliser mais Baye Fall yaa ngi ci koñ bi fii ñaar tëli la ñaartali la xam nga koñ saf saf bi bàyyiwuma dara ragaluma loolu ko en fait xam nga di ci gën a woo Baye Fall ci koñ bi yëpp képp kuy doomi ñaartali yee noonu la demee le 24 bi ñoo ngi koy waaj bu baax de incha allah rabbi te ñoo ngi ñaanal Pape Dianga Pape Dianga moom suñu la suñu lépp la ñoo ngi koy ñaanal incha allah bu boobaa yàlla may ko bëre daan ñibbi incha allahu rabi ñu ngi koy ñaanal lool bu baax xëy Pape Dianga moom suñu grand la te ñoo ngi dégg noonu kookoo ngi nekk foofu noon di wax waaw di wax loo xam ne waaw nekkul si moom te boobaa dina xam ne dina xam ne saabu du fóot boppam boobaa dina xam ne saabu du fóot bopp dina xam ni ñoo ko mun ñoo ko ëpp doole. waaw su ko moom suñu yëf la ñun ñoo ko moom incha allahu rabi moom ñoo ngi ñaan yàlla. mbooloo bi yëpp dina ñëw bàyyi faal yi ñëpp incha allah waaw ñoo ngi koy waaj de yëngal si kaw ñun ñëpp ak sama gaay yëpp waaw ñoom moo lamin booy yëpp ñoo ngi koy waajal incha allah waaw. ah ngi woo sama mbokku baay Fall yi sama mbokku booy yi toog fii waa neex booy booy yëpp maa ngi woo booy koñ meññ ay gol be ñoom ñëpp ñu ñëw jàpp si ñëw yëngal stade ba mu yëngu dem ñibbi. incha allah yàlla ji may ñu waaw victoire ñu biseeg jàmm ak salaam. aw maa nuyoo di nuy ñëpp Pape Dianga moom grand bu baax la quoi instant moom dafa ñëw si koñ bi rek bokk ñu lay Baay Faal lañ mooy loolu quoi ñu koy ñaanal yàlla le 24 incha allahu rabi yàlla may ko victoire ñu ngi dégg nag si mbër boobu noonu di wax mais nag di nga bu jour waa dina xam ne xoolal mooy loolu quoi. ñun Baye Fall yi dañuy jóg incha allahu rabbi di mobiliser def mobilisation bu takku def stade mooy loolu xam nga mbooloo mooy doole ko dooleel Pape Dianga incha allahu rabbi yàlla may ko ndam bis la 24 incha allah waaw man nag dama mënut a wax ko mooy loolu waaw. waaw combat moom waaw nuyoo sax d'abord man nuyoo maa ngi nuyu sama gars yëpp nuyu sama gars yëpp waaw. combat bi moom jàll nañu lépp quoi parce que combat ñun bor lañ ko jàppee ne nekkul moom rek a jàppee bor incha combat bi moom ñëw jàpp daal lañu gëm parce que ñu ngi ciy entraîné bu baax ñu ngi ciy entraîné bu baax ñun ñëpp tam wóolu nañ ko ci. waaw jour moom lenn nag lañ koy ñaan mu yëngal ci suuf rek ñu yëngalal ko ci kaw dara. waaw daan dem ñibbi waaw. waaw. ah dawal xanaa ma nuyoo ba pare rek xam na di wax di di di di a ñaax mbër bi Pape Yanga di ni ñun ñoo ameel waa ñaatali bor ko da combat bi moom suñu combat la dañoo war a ñëw rek xam na def lépp lu ñu war tey déglu adversaire respecté ko malgré que mi ni nekk si rajo di wax xam na tey mi ko rey di di wax gain mooy loolu da affaire yi du wax affaire yi jëf la à part ça da ngay respecté xam na jox war yëpp joru combat bi su ñëwee ñu jàpp ko daan ko mooy loolu dem ñibbi du du woon sax moom ñu moom lañ waroon jël quoi xam na nu mu demee la rek moo tax ñu jël ko mais objectif bi du sax moom yenn saa yi ñu ngi leneen lu ko raw xam na ay loi des arènes lépp ñu ngi koy séntu incha allah daj waaw yàlla mën na ko quoi wax baaxul xam na ñu moom mënewuñu wax moom waaw jaajëf. maa ngi nuyu waa Niary Tally yëpp bu ndaw yi ñoo ngi nii toog ñu ngi waajal la bésu 24 baax a baax dañ ko si suuf ñooñ fii nii su bi combat bu wàcc daan mu daan suuf ak sama mafia bu ndaw bi ak sama papa mafia bi ndaw bi waaw day bëre moo ak Tapha Tine le treize daan moom daan <laughs> war gis nga Baye Fall yi ah bilaay walaay mooy loolu quoi gars yi seen fay ci dara billaay walaay xam nga di gën a day xam gën a góorgóorlu gën a xam suñu bopp barke alxuraan sas la quoi te ñoom des na sax parce que dama war a doon champion bilaay walaay dama war a doon champion képp kuy suivre lamb boo gisee Pape Dieng ci digg géew da nga war a champion ngay gis si moom man mbër laa barke yonenti yàlla Mouhamed champion pire la mais xam rek yee jàppale bi quoi gis gars yi nañ ñëw teg si loxo bu baax a baax a baax na trop yee ñu ngi raam muy metti torop sax bilaay walaay bàyyiwuñ kenn képp ku si mun a jàpp na nga ñëw jàpp ci xam nga yàlla suturaal ñu may ñu ndam moment bi daf ñu war a fekk ñuy bëree grand combat ñuy bëree grand bi daaxuñ ñu saf ci laam bilaay walaay daaxuñ ñu bëree daaxuñ ñu saf ci laam yee yàlla mooy wërsëgale nag mais ñun nañ nekk si yoon bi ñoom ñu nekk si yoon bi rek jaan suuf tànk suuf yàgg yag daje incha allah waaw noonu la demee nag. waaw kooku suñ grand la suñ mbokku bool-bool la. borom baax la muy Fallou Ndiaye. di ko ñaanal jàmm ak tawféex bu yaatoo yaatu. yee di ko ñaanal SFM yëpp. di sant ku mel ni Modou Anta sans frontière xam nga di kontaan ci moom bu baax a baax a baax nag na ciy jéego. yee di bëgg ci moom bu baax bi laaxee borom baax la Baye Fall bi. noonu la demee nag di wax bu bés baax moom. nañ toog xaar bu doy waar ci Pape Dianka bëre bu doy waar ci Pape Dianka incha allah. yee. ñoom ñëpp uñ kenn dañuy bëre suñ biir rek. ay xale la xam nga yuñ boole. xalu ñaa xam ku ko tegtal ak ku ko digal. mais bu paree foofu noonu lay tànnewaat ay adversaire am incha allahu rabi te Pape Dianka day bokk ci adversaire yi muy njëkk a tànn le 24 bu jaalee ma bëree ba pare ci stade bi la may tànnalaat adversaire incha allah. yeneen combat yi jeex ban nga xamante ne bu combat yi jeexee. waaw waaw na. ku ci ñëw ñu bëre. ku ci ñëw ñu bëre. Ah. seen côté laay xalaat mais du sama côté. non moment bii man soxlawu ma ci kenn. yee parce que tolloo tolloo wuñ fa nga xamante ne nii tolluwu ma fa. ñun ñëpp benn génération bi la xam bu ma leen rawut ci làmb ñoom rawuñ ma ci laam kon du yoon may taxaw naan diw laa soxla ci ñoom li ma ci war a def mooy que ni bu bés baa mu ñëw bëre ci fulla ak fayre ak jom daan ku daan ma taxaw bëre ak yow mais ku daanu man damay dem bala fa aye non non que man ndam laa gis suma kanam yee waaw loolu gars yi may dooleel ci bépp côté rek muy waa Ndondol xam nga fa ma juddoo ñoom ñoo ma ci mën a dooleel rawatina waa ñaari tëli gi nga xamante ni fi laa yeewoo ñëw fi mel si que fi laa juddoo barke alxuraan aw ma xaar ma yàlla ci kenn ñoom tamit kenn amul xaar ma yàlla ci Pape Dianka ko ma gisal da ngay jàpp ko ne ñoo bokk ndey baay xam te loolu noonu ñoom ñoo ma may maa ngi lay kontaan bu baax a baax a baax di leen ci woo rek comme li may wax chaque jour. di ci woote képp ku ci mën a jàpp maa ngi lay woo. Papa Siteu man li ma lay woo bëriwul leen rek laa lu ma lay wax mooy que ni yàlla na la yàlla may jàmm ak tawféex ba bés ba ba nga ñëw géew ba. yee bu boobaa ngay comprendre que ni avance bi say moroom ak say moroom yi doon jeex ñoo ko doon jël di baay yow nga ñëw jël. yee di la ñaanal jàmm ak tawféex entraîné nag loo entraîné doyul waaw loo ni ci doole doyul. bëre moom jaru ngay sonal sa boobu parce que loo fi loo fi indi rek am na loo fiy fekk la nga xamante nii triplé na ko yee entraînel yàlla may la wër may la kàttan ba bés ba nga ñëw ma daan la nga dem ñibbi incha allahu rabi loolu laa am lu may wax Papa moom moo doon nekk foofu ne daf ma bëgg a gis xam man moom aw ma ci xaar ma yàlla ba ma ñëwee taxaw ma sax gis naa ko mu gis ma ma ne ko pare naa mu ne ma pare naa ma ñibbisiwaat jee non man maa fa taxaw rek ne ko après man damay dóore mu ne ma amul problème bu bës ba ma ne kon jeex na te man dama dëggu ci sumay kaddu baat bi suuflee rek man damay indi li moo indi waaw muy xeex muy bëree ñaar yëpp bàyyiwuma ci dara daal. waa waaw ça dépend ci mooma bu fa nekkul di daw kay. yee bu fa nekkul di daw moom mun na neex. waaw bu dawul mun na neex te mun na doon ci combat yi gën a gaaw. waaw te séntu naa fa top 5 tamit bu baax a baax a baax. waaw noonu la demee. billaay walaay. top 5 laa la dafay dem. day am gan Papa dama koy dugal top 5 incha allah waaw. waaw noonu la demee ñun ay bool bool lañ 100 pour 100 bool bool xam nga ñun dañu yar ci bépp anam. yeah supporteru Pape Dianga mosul ñëw esaat ñu ne moo def li wala moo wax lii non dañuy ñëw sangu ba set sol ay tiset yu nice xeej parfum yu neex ñëw toog supporter waaw supporter seen mbër bu bëree ba pare ñu dem ñibbi waaw man de ba may bëre ba léegi mosuma dégg ñu ne supporter Pape Dianga bii moo ñëw esaat def nii wala moo def nii yàlla xam na ko te loolu dama kontaan si ñoom di leen gën a ñaanal jaamu ñoom tamit ndax aw ma seen fay billaahi dañuy siy sonn 100 pour cent Pape Dianga bi fan sa club bi groupe whatsapp bi barki alxuraan ñoom ñëpp awma seen fay dañ ciy sonn guddee ak bëccëg di ci jaabante yee di dem fu mel ni Bambey Bambey séeréer wallaahi depuis mbapat ba fii may wax yow bàyyiwuñu ku ci mel ni Tafa Ndiaye yee Assane Sita laay jikwaa Dece Ndiaye Mbay Thiaw Seen bilaay walaay ñooñu awma seen fay Aliou séeréer Aliou Sarr séeri Aysatu barki alxuraan ñooñu dañ sonn ci Pape Dianka guddi ak bëccëg nag duñ ci taay benn yoon depuis mbapat ba fii may waxee ak yow waa Bambey séeréer Kër Seck maa leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen taxawaay rafet no di sant suma waa dëkk ndondol du ma taay di ko wax 16 villages ndondol bi yëpp yee bàyyi ma fenn bu ma limee 16 villages mën naa juum barke alxuraan mais bàyyi ma fenn képp kuy doomi ndondol maa lay woo ci combat bi di woo waa ñaari tëli sama koñ koñ ñu saf-saf bi maa leen di woo bu baax bàyyi faali ci koñ bi billaahi wallaahi waa kafe ga gars yi yëpp maa leen di woo di woo waa Intox waa Intox maa leen di woo di ko njëkkee ci Omar Cissé directeur bi maa ngi koy woo di woo Serigne Touré di woo Malick Guèye xam nga ma kenn daal ñoom ñëpp maa leen di woo ma limeeloo ñooñu rek lim naa Intox ñëpp waaw Intox bàyyiwuma kenn maa leen di woo ci combat bi bu baax di leen wax ñu teg si loxo bu baax a baax a baax jàppale ma yee parce que làmb laa am làmb laa bëgg maa ngi ci nekk bu ñu ma tegee loxo lu ndaw rek man damay dégg daal yee te yàlla nañu yàlla suturaal nag bu bës baa ñaari combat yi nga xamante ne nii jël nañ ko ñu am ci ndam bu seddu guy yee te am nañ ci yaakaar bu baax ndax bu dee coono moo koy maye ñu ngi tegoo coono yu méttee métti billaay walaay bu dee dox moo koy maye tamit ñu ngi dox lu méttee méttee ñaari combat yi li tax mu jël ko dama bëgg a defar suma carrière Omar bu baax kon duma ma ci fo du ci ree waaw mësuma dugg ci géew ñu ne Pape Dianka dafa dafa ñàkk fu la fayda jom saa su ne moom laay wone yee di kontaan ci yow nag bu baax a baax di la ñaanal jàmm ak tawféex yee di la ñaanal nga dem ba yor sa yëfi boobu sa télé boobu barke alxuraan kontaan nañ ci yow bu baax ndax yow Baay Faal nga di nuyu suñu waa écrit ku ci mel ni suñ entraîneur père père Mbaye Faye suñ président écrit père Jaxate xam nga di bëggee champion ya fa nekk yëpp bàyyiwuñ kenn képp kuy champion ci écrit ba rek maa ngi lay bëggee ñi fa am combat di leen ñaanal yàlla may leen ndam ñaamul amul leen ñaan yàlla may leen combat dañ mujj ak ndam écrit Doudou Baka Sarr yëpp nag bàyyiwuma kenn champion yi ci gox bi fii bàyyiwuma kenn yee bu mu tuddee kii bàyyi kii rek day niru leneen mais ñëpp képp kuy tàkk ngem nekk si ñaari tëli danaan Dakar bi xam nga biscuiterie benn tëli asalem ñëpp maa ngi leen ñaanal jàmm di ko saako ci yëm di kontaan bu baax a baax a baax ci Baye Fall yi toog nii xam nga di bëgg seen i kàddu xam nga parce que lépp ñoom la daal barke alxuraan di leen gën a ñaax nag bu bés mobilisation di leen wax ne bor la te yàlla mi ma tiim xam ne dama koy fay incha allah le 24. waaw loolu laa amoon lu ma ciy wax. Bajo bajo eh, seen baay ñëw na. waaw waaw. waaw waaw. waa koñ bi leen xool waa koñ bee. seetaan Pape Dianka ñëw na ku si génnul dangaa soxor sama ma fi bi la xam nga ñii am ma fay barki alxuraan di ñaanal jàmm ñoom ñii ah bilaay samay xarit lañu sumay nit lañu yee noonu la demee nag man ñoom la quoi bilaay walaay Omar kontaan naa de bilaay walaay kontaan naa trop di la ñaanal jàmm saa su ne yee di ñaanal bépp yaay bu nekk Sénégal yàlla guddal sa fan yee di ñaanal sama yaay bu baax yal na yàlla guddal fanam ba lépp mot incha allah yéen a yëg lépp réussir bu neexee yàlla kontaan nañ bu baax.